mais match bu am solo bu neexa ne bu bëri jàngat aussi parce que tey jii boo xoolee championnat bi ñu jëm am na équipe yi mel noonu yoo xam ni la ñuy fubale ay xale la ñuy yor sawar nangoo football boo demee ay amitié boo demee ay ay jàmbaar donc club yi mel noonu aussi pratiquement mun naa ne benn même philosophie la bi ak ak ak di 17 yi donc je pense que ñun ñoo xam te ñu ngi deuxième phase deuxième semaine préparation te ñoo aussi bu fàttee tey jii équipe nationale boo ko waxee mooy maanaam les meilleurs nga dajale. Eh, ñu nekk seen seen préparation eh, tey jii yàlla dimbala ñoom ñu am terrain bu ñuy préparé wu bu leen gën a jege ñun aussi ñu am jafe-jafe boobu jóge kaw la di ñëw fii donc ñu ngi def on est en train de faire avec je pense que tey li ñu booy wone vraiment xaw na dal xel c'est vrai que des na lu bari ñu war a liggéey dinañ ci liggéey dañ toll ci benn phase boo xam ne mise en place tactique la ci ay système yu war a doxal ak yooyu tey boo xoolee benn système lañ indi ci loolu la ñuy préparé pendant toute la semaine wàccaay bi comme comme ñëpp rek comme ñëpp ñu ngi waajal euh, comme ni may wax rek semaine bi ñu jëm semaine la boo xamante ne il faut que ñu xam comme on reçoit il faut ni xam nan la ñuy je pense que boo xoolee li ñuy de a pendant la semaine de wax comme on reçoit donc nous dafa nous voir ñu war taxawee te defe naa taxawaay boobu la ñu essayé tey premier mi-temps bi on a eu deux milieux offensifs am benn récupérateur comme on reçoit dañu bëgg dem ci lancer boobu te aussi ci mise en place tactique yooyu nekk ci système yi ñu war a doxalee donc ci benn système la ñu on war nañ dugg ci yeneen système je pense que pendant durant la semaine et voilà je pense foofu la ñu tolloogul xam ne semaine bi ñu jëm euh, dañu dem ci ay tournoi suñu jógee ci ay tournoi aussi dañuy nekkaat ci leneen pour préparer saison waaye li ko waral yëpp mooy ñun euh, dañu ne du ñu jouer ak ay cadets suñu morom dañuy ut ñoo xamee ne ni bu ñuy jouer ñoom danañ nekk ci ay jafe-jafe danañ jël dara ci ñoom danañ jàng ci dara ci ñoom du Saloum rek la ñu joué barki démb rek joué nañu ak ñun ñoo demoon Dakar joué nañu Guédiawaye joué nañu équipe L1 yu bëri donc ñun ñoo ciy jëlee dara ñun ñoo ciy jàng te liñ ciy jàng yëpp gis nañ ko tey Saloum a créé des ay problème donc gis nañ ne loolu axe de travail la war ci parce que balle haute yu bëri devant la défense Saloum Il ko gagné ay situation corner demi demi coup franc Hein? donc il faut ñun ñu jàng ko ci donc vraiment mënul lu dul di jaajëfal Nous nous ma coach Saloum le fait que mu may ma ñu joué ak ñoom ñun ñuy ay cadet ñoom ay senior confirmé donc nous lu dul di leen remercier. waaw ñu ngi bu euh, groupe bi ma yoroon deuxième semaine de travail. ñu ngi koy waajal bu baax parce que xam nañ li ñuy xaar donc am na groupe boo xamee ne nii jaar nañ fi loolu la ñuy wax détection di leen saytu di xool ñi nga xam ne ñoo gën ci xale yi ñi yaakaar ne ñoo gën parce que gën aussi des fois mun na nekk lu relatif donc ñooñu jël nañ leen ça fait deux semaines xale yu bëri nag yoroon naa leen en équipe nationale U15 yoroon naa leen tamit bi ñuy nekk euh, équipe nationale scolaire ak académie donc dama dajale rek ay xale yu bëri yoo xam ne yoroon na am na ci nag ñoo xam ne mosuma leen yor mais macha allah ñu ngi ñu ngi liggéey. pour xamanté xam ñun suñu façon de travailler nan la. wa di len di len di len jaajëfal ah di len encourager bu baax di len wax ne nañ liggéey rek liggéey rek moy fay té nak na nit ñi aussi patient ñu mëna muñal entraîneur bi mëna muñal xalé yi parce que tabax tay dëkk ci tay yombul généralement tabax bobu du dëgër bay len ko mu liggéey au moins quatre ans ah ci 5e année bi nag ngeen laaj ko championnat wala ngeen laaj ko coupe du Sénégal.